di boo xamante ni bii taarix la mboor la histoire bopp Sénégal moo ko tax a jóg ñu fas yéene di ci ànd ak yéen ngir di leen indil xew-xew yoo xamante ni ci sunu réew mi la xewoon muy sunu mboor xanaa di leen gërëm rek ak di leen wax yéen ñi aboneegul ci chaîne bi ngeen abone ndax man di jot vidéo yi nga xamante ni mooy émission yi nuy def ngir yéen xam ngeen ni bi ñu nekkee ci histoire njaayum jaam ci Bawol am na lu ma leen junjoon ñi leen woon dinaa ci dellu siwaat ak yéen te mooy xew-xew boo xamante ni mu ngi xewoon ci dëkk bu ñuy wax Njonge nekkoon ci wetu Làmbaay di xew-xew boo xamante ni jamono ji muy xew Henri bi nga xamante ni moom lañu reyoon ci cees ci mbirum jéeri baayam moo doon

mbirum njaam moomu njaayum njaam mi mu doon miin miim moo dem ba ci la ñu rey doomam jooju doon Henri Choton mbirum jonge mi dafa am journal bu doon génn ci France ñu doon ko wax l'intransigeant journal boobu numéro bi génn ci ñaar fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin 1895 di at bi nga xamante ni ci la Serigne Touba dem ci géej gi dafa indi mbir mu am solo ci xew-xew bi xewoon Njonge ndax dafa am benn sénateur buñ doon wax Isaac doon nit ku ñu dëkk ci Guadeloupe. bi ñu dajee ci Sénat bi mu wax fa lu am solo fekk boobu ñu ngi doon voté budget boo xamante ni bii mi ngi jëmoon ci réew yi France colonisé woon muy Sénégal

di jëf ju ñaaw te jëf yooyu ñu jëf ko ci la France républicaine ci lañu koy jëf maanaam daje boobu mooy mottali daje bi amoon ci fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin ca Sénat ba kon ginnaaw bi nga xamante ni bii sénateur yi daje won nañu fukki fan ak juróom-ñaar ci weeru juin daje bobé musée euh, Isaac mi doon sénateur Guadeloupe journaliste bi nee na dénoncé na fa jëf yoyu ñuy jëf ci turu France ci Afrique ñaawlu ko dal ci kaw régime colonial bi jëf-jëf yooyu journaliste bi ni Isaac nag discours boobu jaroon na ñu njukkal ko ndax yemul ci discoursu kese ndax bi ministre bi mii mais wax ni loolu ñuy def Afrique ci senegal ak Soudan du Mali yëgu ko monsieur Isaac moomu daf ko xamal niko bu yàggul rek amna xew-xew bo xamanteni xewna ci deuk bu yi wax njongé di deuk bu am solo un village important du Baol nga xamanteni deuk ba dañ ko lak japp nit ñafa fa def len ay jaam te loolu mu ngi amee woon ci ndigalul administrateur bu lambay commandant bi nekkoon lambay moom moo digle woon loolu journaliste bi nga xamante ni moom la wax Henri dafa am article boo xamante ni mooy bii may wax nii daf ko consacré ci crime boobu amoon ci njonge indi ci ay firnde ak yëf yi mu deme moom Henri Rochelle moomu nee na Isaac bi muy wax wax ji le ministre Chatan ku ko xool rek xam ni amoon na ak jaaxle ndax moom moo doon miim mbir yooyu wax ni amul te muy mbir yoo xamante ni mbir mu doy war la mbir mu ñu war a wax la waaye moom mi ministre des colonies daf ko doon miim nee na Isaac ni ko nun noo ay firnde ay document yoo xamante ni yow monsieur le ministre lii ngay weddi document yi daf koy dëggal ndax document yi nu yor ku dëkk ca dëkk ba di njonge moom moo nettali lii ñaar fukki fan ak juróom ci weeru mee wi jàll moom dëkk ca dëkk ba bokk ca waa dëkk ba moo nu nettali cong moomu nga xamante ni song nañ ko dëkk boobu di njonge jàpp ñu fa dëkkoon def leen ay jaam mu ni nag kër ko doon nettali ab yaxantukat la woon ab commerçant dëkk njog yi ñu doon ko wax Amari Jali Fall na Amari Jali bi muy nettali mbir yi ni mu demee amoon na ñeneen ñaari traitant yu ko fekke ku ñuy wax Lamine Sène ak ma Maham Mbuub yow nag monsieur le ministre li nga weddi wax ni amut ci laa lay ñëwal ci li nga xamante ni ku dëkk ca dëkk ba bokk ca di Amary Jali mu xewe ci kanamam moo nu ko nettali mu ni ko la waral cong ma lu toll ci ñaar fukki fan am na sàndarma boo xamante ni bii ñu ngi tuddoon Sowal Wali Jaañ nga ya, xamanteni mom ciosanam jonge la neena na sandarma boobee moo ñëw ci Amadi wa dëkk bépp amadi Jali Fall moy netali ñene bi mu ñëwee kaddu yi may wax mom la wax sax sax te moy borom dëkk ba nee sandarma bi dafa ñëw ni ko commandant moma yabal commandant biñ doon wax Moleur ngir xamal la ni moom commandant day ñëw ngir fanaan si ci sa dëkk bi di njonge commandant nee na day soxla juróom benn néeg yoo xamante ni mook ñi mu àndal ci la fanan nee day soxla yetti ganar ñetti ganar day soxla itam ay nan yo xamanteni ci bis bi la ko ganaar yi nen day soxla itam meewum nak ak meewum bey ak meewum xar nee itam nga wajal ko ab wudd fu ñuy yow ay fas lo xamanteni ñaar fukki fas danañ leen ca mën a yeew nee na itam nga waajal ndox mi nga xamante ni ci la ñuy wëgg fas yooyu nee na itam nga waajalal ko ngooñum gerte moo xamante ni moom la fas yi di lekk nee itam nga waajal dugub joo xamante ni moom lañuy def ci gafaka yi ngir fas yi man koy yéey nee na itam nga waajal matt moo xamante ni moom la ñuy taal bu ñu ñëwee nee na itam nga wut ndaw yabal ko mu toog ca buntu dëkk ba ngir que moom commandant buy ñëw ndaw loolu mën a ñëw xamal la ni la commandant ngi egsi sandarma boobu di bi mu waxee loolu nee na ku ñu wax yaaxam xam kumba yaa xam kumba di rakk ci borom dëkk bi nee na moo daal di jël kàddu wax wax joo xamante ni daf caa ànd ak kilifay dëkk bi yépp nee kàddu yi mu yëkkati moom yaa xam kumba dafa tontu sandarma boobu diwaali ni ko dégg nañu li nga wax li commandant bi laaj yépp danañu ko toppatoo danañu ci yokk itam yoo xamante ni laaju ko te mu jëm ci reer bi nga xamante ni moom la ñi muy àndal di war a reere danañu waajal fukki këll fukki bagaan cere boo xamante ni dañ koy boole ak ndawalu xar ngir terale ko commandant ak ñi mu àndal kon daal li nga wax lépp danañ ko waajal muy li commandant bëgg waaye fukki mbagaan yi cere du ko waajal boole kook yàppu xar ngir reer bi nga xamante ni ñi mu àndal moom la ñuy reere ma Jali Fall mooy nettali ba léegi nee na bi jant di so ci la commandant bi egsi njonge nee na bi mu ci nuyo bu gàtt ci le nuyo ak borom dekk bi wax sax sax borom dekk bi mi and ak notable dekk bi manam kilifa yi dekk bi ngir dalal commandant way commandant bi mu euh nuyo bu gàtt le nuyo nee na laajte ne nañ ko indil ñetti gën xam ngeen booba toogu yombul gën yi ñu daan dëbbee moom lañuy dëpp ngir mën ci a toog moo doon fauteuil yi léegi wala chaise yi léegi nee na commandant di laaj ñetti gën ñu indil ko ko dëpp ko mu toog ci Nenek zaman jamono joju muy tok ci la fekk nun wa dekk bi sunu fos yi wëtoon ñew di jof si nee fos yi biñu ñu commandant fi mu tok romb fos yi gendarme yi waron nee bi len commandant bi dafa daldi di fetal gi mu yoron rek dari ci duggal ab cartouche daal ni eey téye leen seen fas yi walla ma fetal leen nee na ñun ñëpp kenn ku nekk daal dem daal di téye saw fas daal koy jël dem làq ko fu wóor nee na bi xool daal ni waaw man dama laajoon ngooñum gerte paille d'arachide bu bari mais li indi cim ngooñ doyut dafa tuuti nee na boroom dëkk bi dal di wax ñu dal di indiwaat ngooñ mu bari daldi koy jalal fosi yi nee na commandant bi daldi di yëkkatiwaat ay kàddu jëmale ko ci saax-saax saax-saax nag xam naa turu boroom dëkk la maanaam ndomb ak tànk xañ na chef de village wala borom dëkk bi moom nañ doon wooyee saax-saax jamono la nee na bi daal di ni borom dëkk bi waaye ndax mas nañ laa yeew nee na borom dëkk bi ni ko yeew man de kenn mësumaa yeew ndax man musuma def lu tax ñu war ma yeew kenn musuma yeew kenn musta yeew sama ñooñ diwaa dëkk bi nee na commandant ni ko kon nag bis ni tey man dinaa la yeew danaa la mosal li li nekk ci yow mooy li ñu daan wax njoñ bu njëkk ab sàcc bu ñu ko jàppee dañu koy yeew njoñ ko bi mu ne borom dëkk bi yow ndax mas nañ laa njoñ mu ni ko déedéet mu ni ko tey danaa la ko mosal dinaa la njoñ nee bi mu waxee loolu euh, boroom dëkk bi di protester naan ko nag li ngay wax mooy waxi lan man lan laa def ba nga ma yeew man kenn mësuma yeew nee na ci noonu ab sàndarma bu doon wax soose saw soose saw waxoon naa leen ci émission taarixu daarul manaan ñi leen bari na mbir yu mu feeñ bi ñuy jël ci sëñ bi loolu sax moo mujj 1903 waaye gis nga 1895 di at mi nga xamante ni ci la sëñ bi dem ci géej gi xew-xew bi xew njonge moom soose saw mu nga fa bi ñuy faat jéeri ca Thiès xew-xew boobee ñu reye woon Chatan moom soose saw ma nga ca 1903 itam moo escorté woon sëriñ bi njaareem ba euh, Tiwaawoon ngir mu jël fa saxaar ci yoonu gànnaar bi nee na sandarma boobu ñuy wax soo soose saw bi commandant waxee lool rek moo daal di ni nikk daal di jàpp loxob boroom dëkk bi nee na borom dëkk bi daal fippu loxoom bi soose saw téye ngir bëgg ko yeew nee mu daal di fippu ngir rëcc loxoom boobu nga xamante ni moom la soose saw jàpp nee na fippu loxo bi rëcc nee na ku ñuy wax layti ndaw ak njaayan Fatma nga xamanteni ñi ngi woon ci wetu borom dëkk bi nee na ñoom ñu daal di jóg taxaw ngir fas yéene taxaw borom dëkk bi nee na commandant bi daal di mer nee na gendarme yi mu àndaloon daal di daw si ñoom itam ak seeni fetal ma jëli nee na itam nun waa dëkk bi nu daal di wut sunu yat fa nga xamante ni fa la nu taxawoon doon déglu commandant bi ak wax ji mu wax ni day yew borom dëkk bi bi ay gendarmam daw seeg seeni fetal nee na nun waa dëkk bi tam danoo daw si ak sunu yat ngir taxaw borom dëkk bi nee na boo nun nanu boobu pour joxe sunu bakkan nga xamanteni ni bu tampalo amé ay bakkan yu bari dara dana touru nee bi commandant bi gisé loolu nak ci la seddal bi mu gisé ni borom dëkk bi titut nee ci la daldi réni ko man ñëwuma ngir je ne suis pas venu pour t'apporter la guerre ñëwuma pour xex ak yow dama doon kaf rek ndax commandant da doon kaf épisode ñaareel bi dana ñëw ak yéen ci pexem commandant mii doon jéem a yeew boroom dëkk njonge te waa dëkk ba jéngu te la mu laajoon lépp ci ay teraanga ñu defal ko ko ba defal ko loo xamante ni bii laaju ko woon kon su ngeen bëggee xam fan la mbirum njonge moomu mujj da ngeen ñuy topp ci épisode bi topp ci bii di ñaareelu xaaj bi ma di leen sant di leen gërëm di leen soñ itam ci abonnement wu chaîne bi ngir émission bu ñu produire rek ngeen man koo jot mu doonoon seen mbokkum taalibe liggéey ak nu borom daaru Muxti Mbay Géey Sil ma di leen sant di leen gërëm ci ànd bi ngeen ànd ak nun jërë ngeen jëf waaye Farañse man na Sénégal ñii ñu dugal ñu dugal ci Sénégal ñii génn gàddaay far dem faatu ñu joxe seen ndax ñu yaatu fam nañu saamu yi soose yóbbu gabang boole koog baraama siise tala kapoor ba ñu lekke imbulaañse daf ko ci biir la ma faraañse ñoo génn lam de julbeere ñooro roy nag ki doom ji jàll fuuta tooro ñoo del roy nag almaami Abdu Bukar